téeméeru milliard la nguuru Sénégal jagleel campagne gerte bu ren bi production bi mën nañ ko xayma ci un million sept cent ndax mbay mi lu am importance la ci réew mi mën nañu xayma sax daanaka genn wàllu askan yëpp ci mbay la ñuy dund wala ci mbay la ñuy yëngatu Elimane jëwriñ yi di Amadou Ba ci juróom-ñeenti ndigal yi mu joxe mën nañ ci ràññee njëgu kilo gerte. bi président Macky Sall ñëwee nag at bu nekk dafa am lu ñuy teg ci njëg li bi yoon am ci lu ñu ci teg it ba nga xam ni jàpp nañ ni gerte gi liñ ko war a jaayee du yées warut a yées warut a yées juróom fukk ak juróom-benn. ci neuf recommandations yi ñu ràññee ci pàcc bu am solo di fexe ba aar semence gi. ministre des forces armées bu intérieur. nañu nag yokk kaaraange frontière bi ndax bu ñu toll ci yu mel nii ñu bari dañuy fexe génne gerte gi ci réew mi kon loolu si lu ñu war a seet la ndax daan na am te ren jii war nañu fexe ba gerte gi bañ génn dem ci yeneen réew yi te jaarul fi mu war a jaar yëpp ci biir ndaje bile ministre bi ñu dénk wàllu mbay mi itamit yëkkati na ci ay kàddu. wax leen déjà bi muy ñëw ci bopp réew mi laataa muy ñëw mën naa ne fa laay njëkkee en 2011 su ngeen xoolee production wu gerte soo ko doon xayma mu ngi toll woon ci 527000 tonnes tey ci tey ñoo ngi wax déjà campagne bi wees ñoo ngi wax 1 million 500000 tonnes ci bu wees bi. ren ñu ngi espérer un million sept cent ci fàttali 30 novembre bi ñu jëm la ñuy door campagne bile bu ñu sukkandiku ci ndigal Eliman jëwriñ yi nemmeeku nañu ci subvention d'engrais bi ab yokkute bu am solo par rapport ak juróom at yi weesu lépp rekk ngir Sénégal mën a moom boppam ci wàllum dund.